ñëw ziyaar si xalif bi ci euh, weer wu tedd bi ak gamu gu tedd gi nga xam ne ñu ngi koy waajal euh, ñu gis taxawaay bi nga xam ne moom ko ci réew mi mais surtout ouverture d'esprit bi nga xamee ne mu ngi ci xalif bi parce que ça su ne suñuy waxtaan dañuy dugg ci géopolitique dugg ci ay mbir yu yaatu yoo xam ne euh, du yenn saay nga koy mën a waxtaan ak kilifa waaye moom ouverture d'esprit boobu niveau intellectuel boobu nga xam ne am na ko euh, moo tax saa su ne damay bëgg di ko jege di déglu lim may wax parce que lu mu la wax rek téere la euh, xel mu sell moomu mu yor yàlla na ko yàlla gën a dooleel kattanal ko moom ba lépp li mu yóotu ci liggéeyal ko fii dëkk bu tedd bi suñu borom sottal ko kon ñëw bii ma ñëw ñëwu doom la ñëwu taalibe la gis nañu kër gi ni ñu ñu jàppee gis nga bi ñu yegsee sax nanguwuñu ñu ñëw toog dañ ne dem leen añi soxna si ñu koy ziyaar di ko sant moom it ci téye boobu nga xam ne téye nañu ko te xam nañ ne lu mu ñu téyee rek mm. ni nga ñu téyee moo ko raw te boo ko tegutoon ci yoon woowu xëy na du ko def kon ñu ngi lay delloo ziyaar di ñaan ci bés bu tedd bii ñu jëm yal na la suñu borom kattanal yal na la suñu borom ubbil xéewal yal na suñu borom dooleel taalibe yi nga xam ne yow lañu yaakaar ñun ñi nga xam ne it yaakaaruñu kenn yu dul yéen ñi fi taxawal mag ñu baax ñi na ngeen aar ñu ngeen yiir ñu ba lépp lu doon seeni soxla taalibe yi mun cee taxaw parce que xam nañ ne amuleen lenn intérêt personnel lu ngeen di def rek pour communauté bi la lu ngeen di def rek pour réew mi la sëñ bi ñas ñuy sàkku ci yow it nga ñaanal réew mi ñaanal réew mi dal ñaanal réew mi jàmm ñaanal réew mi réussite parce que daluk réew mi réussite réew mi mooy ñun suñu réussite

dama ñëw sax fekk presse bi euh, toog jàppoon naa ne Eh, taalibe bu ñëw seet si sëriñam eh, jaru tàllal micro <laughs> jërëjëf ñu ngi ñu ngi wax bisimilah mairie na jërëjëf ci bés yu tedd yi nga xam ne Sénégal yëpp yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi yëpp itam def nañ ci seen kémb kattan pour wax yàlla gërëm nañ la ci li ñu may yonent Yàlla Muhammad Sénégal yëpp jàppale nañ mm-hmm. ku ci nekk manifesté nga ni nga mu ne ngir kontaan ci guddi yi di ñëw ñu ngi kontaan itam ndax guddi yi itam may nañu mm-hmm.

à l'avenir euh, yëpp yonent may nañu ministre Seck compétence yooyu. mu jox ñu yaakaar bu baax a baax. ne incha allah suñu Sénégal gi du sànku. alhamdulilah suñu Sénégal du sànku. alhamdulilah parce que am na ay doomam. yoo xam ne pare nañ pour taxawu ko. doomam yoo xam ne pare nañ pour joxe seen dund pour. seen Sénégal gi bu mu sànku. alhamdulilah rabbil alamina ci barke yoon ci Yàlla Muhammad may nañu. ñu ngi gisee bu baax a baax. ñu ngi ñu ngi weccewante. ñu ngi wóoluwante. surtout wóoluwante. surtout ah ñu koy def ñu koy ñu ngi bëggante. ñu ngi bëgg doolee ko rek. Eh, ci daara lañ nekk. yéen a ngi nekk ci benn côté. Mhm. yëpp daara la. Mhm. waaye Sénégal lañ nekk. Sénégal yu moom ñun ñëpp. ku nekk da nga bëgg Sénégal. dooleeku mhm. ku nekk danga bëgg Sénégal jëm kanam ku nekk danga bëgg boo waxee Sénégal yëg sa bopp ah, ci ngeen jaay seen dund pour ñu am ko bon mënuñ lu dul ñaanal leen euh, di leen ñaan yàlla yàlla na yàlla dëggalal leen seen yaakaar seen yaakaar mooy ñun booy dëgg na bëgg ku nekk am jàmm mm-hmm. am jàmm sa kër am sa mm-hmm. njaboot mm-hmm. am jàmm sa réew ku nekk am loo xam ne dina la garanti sa nekk ci sa biir réew ak bakkan bu mag ak ak yu kawe ah? loolu la ñuy bëgg loolu la ñuy ñaan yàlla yal yàlla dimbali leen ci euh, ñu àgg ci loolu ñun ñëpp ñu àgg ci senegal bi nga xam ne moom lañu bëgg a gis yal nañu ko yàlla woon ñàkkuñ ay boroom xam-xam ñi ngi nii ñàkk ñu am volonté ñi ngi nii ñàkk ñu bëgg ñi ngi nii ñàkk gént ñi ngi nii bon nag dafa des ñun ñëpp nag ñu ànd jàppalante nekk benn doole boo xam ne ñoo bokk fu ñu jëm ah yal na yàlla taxawal leen yàlla taxawu ko ñu ngi kontaan trop ci gis leen euh, ci bés nii voilà ñu ñu ko bokk ñun ñëpp la ah ben sa ñun ñëpp la ah yalla yalla fay la amin ya rabbal taxaway amin yalla yalla dimbalé la amin ya rabbal yalla yalla taxaw do wax ba amin ya rabbal faté wu ñu ñu tamit ben yoon ah ma sha Allah ma ngi faté liku kër ñu ngi top ma la ñi nga fogg dama la waccel <laughs> mm-hmm. ah alors man ma nit nit nit ko ko ko أرى مانجا ما خمنا نتكو نتكو نتكو يفر بطناني mais kilifa yu mel ni yéen mais on est c'est un devoir c'est un devoir na leen fi yàlla bàyyi kattanal leen alhamdulilah alhamdulilah jërëjëf Niass amiin yaa rabbi amiin amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi اللهم امين امين يا رب